pêche, agricule, élevage, politique, port. ñoo ngi nuyu ñëpp di leen siyaare euh, di kontaan bu baax a baax ci sunu tew fi ci Touba euh fek fi suñu mag euh, grand champion muy Saliou Lo Euh, bu ñu tuddee lamb nag fii ci bawol xel yëpp dina dem ci moom euh, parce que bu ñu fàttale ko ñun bu ñu nekk ay xele euh, liñ daan am mbégte ci lamb moo ñu ko doon jox ci carrière am mën nañu wax tuuti ci ay jaar jaaram yi nga xam ne def na ko ci wàllu lamb suñu borom dogal tey mu tekki ngemam mais taxul mu sippi loxoom ci lamb ji dafa formé ay booyam tegi écrème di gën expérience bi nga xam ne amoon na ko ci boppam di ko jox boo yooyu pour nag mu am benn champion bu nekk ci wetam boo xam ne tey ci tundu bawol tey kenn dootu ko présenté euh, muy Fils de Sallo Fils de Sallo euh, mu ngi moo ne ay actualité fii ci bawol ci wàllu lamb sport bi tey kenn mënatu ñetti mbenn ñaar euh, te tuddoo Fils de muy jóge ci combat bu am solo jëmaat ci beneen combat bu am solo loolu nag moo waral suñu teewaay ñun waa Refane TV fii ci Touba fan Réew Mao pour waxtaan ak Fils de Sallo mais balaa ñuy jublu ci Fils de Sallo dañuy jublu ci champion bu mag bi nga xam ne ci wàllu lamb ci bawol fi mu toll Ah, ken opatu ko ci xalaat ah, ken ah, ginaaw biñ la nuyoo sàlloo ñu ngi lay siyaare bu baax a baax di la baalu ak ci tabaski bu tet bi ñu jógee di la baal di ñaan suñu borom boole nu jégal te lay ñaanal tawféex gudd fan gu ànd ak xiwal di ko ñaanal sa champion bi toog ci sawet ginaaw ginnaaw bi ñu nuyoo ba pare ñu jox la micro bàyyi la nga nuyoo ko TV ak ahlu bawal waaleykum salaam wa rahmatullah taala wa barakaatu maa ngi kontaan trop seen ñëw fii di nuyu waa bawul yëpp bàyyiwuma fenn fépp bu ma lumee mën naa juum réew maa war reefan maa ngi nuyu ñëpp seew newraan maa ngi nuyu fépp di kontaan trop ci émission bi ngeen njëkk a def muy jublu ci wàllu làmb ngeen njëkk ko fii ma leen di ñaanal mu porte leen bonheur di ñaan yàlla suñu suñu borom seen site internet bi dem ba raw ci site internet yi alors maa ngi baalu ak ñëpp waa bawul ñëpp ñëpp ñëpp maa ngi leen di baalu ak comme ni nga ko waxee sànq yaakaar naa bawal fii làmb bu ñu xale yi bu ñu gënee bëgg làmb grâce à moi moo tax ñu bëgg ko ba boo xoolee làmb bawal fii bari na ay mbër yoo xam ne ay champion lañu dama leen di ñaanal yàlla rek li ñu bëgg seen carrière yàlla defal leen ko ba fi ma bëggoon àggale làmb faruma fa ak ñoom ñu àgg fa ma bàyyi la di la déglu nag laaj yi quoi. laaj bu njëkk bi mooy bu nu xoolee sport fii ci bawol ni mu fi doxee euh, yaakaar naa bu ñu doon génne lutteurs yi nekk bawol met na deux wala trois cent de personnes yoo xam ne ñu ngi yëngu ci wàllu lam euh, te ba léegi amaguñu yoon wu baax ci euh, ci sport bi parce que bu ñu nee làmb ne bawol bu ñu nee supporter ne bawol Euh, te ba léegi mobilisation bi nga xam ne ahlu bawol war nañu ko mën a def pour jàppale mbir yi nga nekk ci nekk ci bawol pour ñu mën a dem ba léegi defaguñu ko gis nañu fan yi passé euh, ku ci mel ni Badajon ñu lancé cent pour cent bawol pour képp koo xam ne yaa ngi boreeti ne fii ci tund bawol euh, supporter yëpp jog mobilisé wu jàppale la parce que bu nu seetloo mbir yi nekk Pikine ak Géejawaay ak feneen ak feneen li ñu nu rawee mooy mobilisation donc mbir mi pour mu am sponsor yu baax fa mu am mbooloo pour mu am sponsor yu baax fa mu am yoo xam ne dañuy encadré wu nekk ci ginnaawam euh, lan nga mën a wax ci lambu demb ak lambu tey li nga xam ne peut-être bu ci booy tegee seen tànk nañu mën a doon ay champion ñu fàttale ko sa combat ak Khadim Ndiaye euh, gis nañu keroog euh, yaram bu tànk bi nga duggee ci stade bi ak mouvement yi nga daan def ak yi nga xam ne ay manière la woon yoo xam ne mbir yu bari fii ci Bawol mën naa ne amaguñu ko euh, nan nga mën a def boo liggéey loolu ci seen seen euh, écrit yi ak yi mber yi nga xam ne ñoo nekk fii ci Bawol waaw tout d'abord Bada Bada John waajal waala joo xam ne ba may bëre mbapat la nekk ak man jusqu'à présent bàyyiwul ba may bëre mbapat fu ma bëre mbapat fekke na ko lam moom moo ko intéressé amul reefan la dëkk amul réewaama la dëkk amul njaan la dëkk kooku lamb moo ko intéressé xale Bawol yi ci jóg percé rek mu ngi ci yow mu ngi lay jàppale ñu nekk ci suuf tamit mu ngi essayé pour yëkkati leen donc euh, ba loolu ñu defoon noonu TFM damay ñaan yàlla xale bawal yi parce que wax nga ko sa biir wax boo xoolee booy Pikine yi ak yeneen mbër yi xaw a doole suñu xale yi c'est parce que suñu jógee seen supporters yi dañuy jóg c'est parce que ne booy wàlle yaa sa dëkk moo tëggul te fii am na ay champion Tapha kenn mënu ko ci làmb ji te commencé na benn affaire su ko bàyyiwul mën naa yaakaar ne yàlla mën na ko dimbali. commencé nañu ko man ak moom ci combat ak Yékini Junior ñëw na seet si ma waxtaan nañu jàppale naa ko xamal ne ma ne saay su may bëreeti da ngay nekk sama ginnaaw làmb nag xëy na peut-être fa ma ko bëggoon àggale àggalu fa mais am naa expérience su làmb parce que dama ci daj ay coono nag coono bu ne daj naa ko ci làmb mais may ñaax xale bawol yi yéen ñii ngeen am dem di supporter ji ay Modou Lo ay balagay Gaye da ngeen am ay xele yoo xam ne nekk nañu fi te am nañu talent te mbër nag dafay soxla bu demee stade xool tirbine bi gis ay supporteram loolu da koy da koy da koy encouragé da koy yokk lu bari xëy na man sama làmb da daan fees parce que boo xool jamono yooyu bawol fii man maa fi nekkoon mbër presque Cheikh Mbaba fi nekkoon dafa teel a bàyyi dem Espagne saa bu ma jógoon xele yi bawol yi jóg war leen bàyyi loolu da ngeen war a continuer da ngeen am ay champion tafaatin kenn mënu ko ci làmb ji dafa des nag tuuti loo xam ne rek mooy comme li nga wax mu war a bëri stade bi fees encadrement bi mu defaraat ko tuuti rek am na ko mel ni Wuli Deux am na ku mel ni Mbay Guy gi bari nañu ay Nokia mais bari nañu ay fils de Zallo bi nii bari nañu ay xale yoo xam ne ku leen poussé dañuy dem encore ñoom itam ñu gëm ne dañu war a lekk ci làmb ji ma leen di ñaanal yàlla saison bi ñu génn nii boo ko xoolee ñoom ñëpp a daan daanaka bu ñu am defet kenn mooy daanu wala ñaar mais seen combat yëpp dañ ko daan mais li des mooy mobilisation bi xale bawal yi maa leen di lancé message seen xale yi suñu jógatee jóg leen soutenir leen loolu rek li ngeen leen mën a defal pour li ngeen bëgg ñu ñu defal leen ko ñu defal leen ko mais kantaar toog fee mbër mi jóg sonn di préparer ay combat yoo xam ne agaguñ ci xaasu bari bi nga bëgg a préparer wu làmb dafa metti da nga war a lekk da nga war a entraîner amaguñu kër amaguñu dara ku leen di fay luyaas lépp daf ci bokk mais Ama Baldé gis naa fi benn combat boo xam ne ay millions lay fayee ko mais waa Pikine yi dañu dëkk kër gu ne génne 1000 francs ñu koy kettal te pourtant yor na xaalis mais dimbali leen ñi ngeen am bawal roi bi war na fi mën a ñëw dama leen di ñaan rek supporters yi bawal yi soo leen seetaani émission bi seen xale yi ku ci jógati rek ngeen jóg jàppale leen te yàlla tax mbokk nit mbok la am ñii ngeen am ñoo di seen mbokk jàppale leen ñu fàttali ñu ñuy seetaan ne ñooy fii ci réew maawo di dëkku Saliou di champion bu mag euh, ci euh, lambu Sénégal euh, émission bi nag fils de Salo moo ko tax a jóg mais comme dañu fekk kilifaam Salo te mu am loo xam ne lu bëri def na ko ci lambu Sénégal balaa ñuy jublu ci fils de sallo il faut ñu waxtaan ak Saliou Lo mi nga xam ne bu ñu tuddee turam mën naa ne monde bi entier xam nañu ko euh, ndax euh, ci carrière am ak jaar-jaaram ak euh, fula si mu amoon ak postef bi mu doon bëree mbokkoon ci lu nu neex parce que ñun ñii di wax ak yéen li nu jot a xam ci lam jot ko ci seetaan bëgg ko ci mën nañu sax ba nga tikkee sangeem la nu bay seetaan lamb parce que lan daan sentir gisatuñu ko gis nañu aussi mbir yu bari ci bawol dañuy jóg am départ bu baax mais dañuy dem ba ci biir loolu mel dafa xaw a yàqu loolu tamit bëggoon nañu nga àndinu ci euh, tuuti xalaat euh, parce que bu ñu xoolee euh, champion bu mel ni Tapha Eh, gis nañu début bi ni mu meloon ak euh, par rapport ak léegi eh, gis nañu fi ay champion yu bëree bëri yoo xam ne mënu ci lim ñu bari ñoo xam ne bu ñuy départ ci lam dañu amoon départ bu baax bu rafet mais dañuy dem bi ci biir mel ne lu xaw di arrière ndax ñàkk doole la wala ñàkk financement la euh, wala ñàkk jàppale la parce que loolu tamit moo gën a tax ñuy décentraliser émission bi pour andi ko fii waxtaan ak yow euh, bu ko defee nga ñaaxaat mbiri bawal yi ñaaxaat supporters yi nga xam aussi ñooy seetaan lambu ji surtout bawal bu ñu nee bawal stade bi chaque jour dañ daan 100 la te 100 pour cent bawol yooyu ci yeneen mbir lay doon mais nekkut ci mbiru bawol loo mën a wax euh, foofu ci mbir yi nga xam ne aussi dañuy jogte jogte bu rafet bu yàgg ju ni kuy arrière loolu leen mën a dénk. waaw wax nga yow nee nga xëy na jàppale la ñu amul mais c'est vrai parce que boo xoolee tey xale yi dañuy préparer combat mooy wax naa ko sànq sama biir wax amal làmb tey ñu ngi mënantee ci jàppale rek ñu ngi mënantee ci jàppale sport boo gis nag sport da xajut ak dara. soo gisee footballeur yi ñu leen di fay ay milliards di leen mettre ay conditions yu baax sa parce que ñuy bañ a am benn souci du ñu xalaat dara entraînement te de récupérer bu ñu demee li ñu la laaj ci terrain bi nga def ko mais su fekkee dangay ngay jóge entraînement nan xaaral ma jaar fi ut benn mille francs bu ma reere bu ma xëyee ndékki mais sa waay loolu dafay metti moo tax ni nga autorités yi nekk bawal fii ak bonne volonté yi nekk fi nga xam ne yàlla dénk na leen nañu dimbali xale yi nañu dimbale xale yi làmb stade bi nii sport la boo xam ne ñëpp ko bëgg te kenn ku nekk nga xëj di jëmale sa côté mu jaral leen lu ne mais loolu la xale yi dese mais tafaaleer boobu nga wax noonu kenn mënu ko mais imagine te tey nga bëre benn ko combat daanu ñi la war a encouragé ñooy taxafee di la sànni xeer day doxaan day dugg fii day deflee day deflale mbër mi di dégg loolu da lay découragé nit bu daanoo da nga koy encouragé jéem a xolli li ko manqué nga yokkal ko loolu ne ko bàyyi lii defal nii mais taxaw fee di ko sànni xeer te ba pare yow jàppale woo ko ci dara bu daanoo rek ngay taxaw fee di ko sànni xeer loolu baaxul dañu jàppale xale yi bawal fii ci Sénégal fii amul ku leen mën a dë ëpp doole ci Sénégal muy Dakar muy fépp ci yem ñi dëkk Dakar ñi dëkk bawal ñooy dem jën seen kër yi dëkk fa ñoom ñu gën toxu ci ca àll ba mais nañu jàppale xale yi bawal yi tabaatin comme ni ma la ko waxee kenn mënu ko mais mbër la boo xam ne bu gars yi mobilisé woon nekk ci ginnaawam rakkam yi mu uuf leen xëy na peut ñu bokk benn écrit dafay jafe mais kenn ku nekk fa nga nekk soo jógee am combat ñeneen ñi ñëw jàppale la mais mën na avancer. foofu foofu parce que bu ma seetloo euh, euh, bu ñu nee Pikine dañuy wax booy Niang te wax am a Sène wax Ama Baldé wax keneen ak keneen donc Bawol aussi comme ku mel ni Saliou euh, jaar fi ku mel ni Cheikh Mbaba jaar fi Mbaye Diouf. ku ne xam na ne carrière am carrière bu ordinaire la parce que def na ay jaloore yoo xam ne bi muy nekk ci lam ji mën nañu ne ku mu toloon mbagg ah, moo la daqa bore donc ñooñu ñëpp mënuñu nekk bawal ba pare mel ni bawal day arrière ci wàllu lam ah, pourquoi bawal ñu toog waxtaan def assemblée générale mbir yi nga xam ne ñoo fi nekk yëpp ak supporters yi fi nekk yëpp ñu xool nañ ñuy organiser waatee lamb bawal parce que guddi yi ñu toll ah, roi des arènes mu ngi ci loxo Modou Lo Modou Lo laaleegul ak Tapha Ama seen laalewul ak Tapha Tine donc xel yëpp tey samp bi may wootante ak moom Tapha Tine sànq bi ñuy wax téléphone ah, wax naa ko lu mel noonu naka ngeen mën a fexee ba roi des arènes boobu bu jógee ci Modou Lo ñëw fii ci euh, Bawol ab liggéey la bu ama am solo pour mu mën a am yow ak ñi mel ni yow kenn ku ci nekk na ci dugal xam-xamam expérience am ak euh, dooleem ak lépp loo xam ne euh, yàlla denk na ko ko ci wàllu sport donc loolu nag pour mën a am faw bawal joxante loxo maa ko doon benn ndax euh, ki tamit laaj na benn laaj bu am solo mu ne ndax mbir yi nañu wàcc ci askan wi gën leen a jegeñ pour mën a saafuwanteeg ñoom boo ñu xam dégg-dégg lan mooy sport yi bu ñu amee combat ñu mën leen ci jàppale waaw wala déet. waaw commencé nañ ko parce que ça pour ça bawal bi ñu def nii c'est parce que tamit nit ki dama yaakaar ne loo bokk waroo xaar la woo muy yow muy kii muy kee muy keneen ñun woote lañ mën dékk nañu suñu loxo ñëpp bu kenn xaar ñu lay woo naan man dañu war a ñëw ba ci man woo ma non lii mbiru bawal la saa pour saa bawal la mais ne ñëpp ñëw nañ ko kuy bawal bawal dégg nga ko mais waroo xaar ñu woo la yow yaa ngi ni yor sa télé ñëw nga fi tey am nga possibilité dugg fépp yow fu ne mën nga fi mën nga fa dem fi nii grace à li ngay def nii donc foo dem war nga mobiliser tamit ñun tam ñu ngi mobiliser ngeen jàpp ci lu mel ni yow jàppati ñeneen ak ñeneen jàppati fu waay mën a nekk dëkk Bawol te mu ñor la non war nga mën a mobiliser waxtaan ak nit sensibiliser leen pour ñu ñëw jàppale ñu parce que ñun tamit ñun kese ñun kese mënuñu dem saa yéen wax naa ko sànq sama jël benn wax tey jii nii tey làmb ji bu tijji woon benn xele am combat ñu gis làmb ji fees del Bawol fees ko mais attends promoteur yi nañ ne mais attends booy bawal lii tey léegi sensé nañu kuy tëgg combat bawal ngay jëm tëgg ko promoteur dañuy business ah luy feesal seen lamb rek la ñuy wër boo bu ñu la tëggee indi woo fukki nit dootuñu la tëgg mënal bëre daqal bëre ñëpp mais soo andiwul nit duñu la tëgg sponsor fayatul benn lamb benn mbër promoteur bu yaakaar ci sponsor ci lamb ci billet nii doo am dara sponsor ngay mën a am sponsor nag pour ñu ñëw fekk si la mbër mi day ñëw indi mbooloo mu bari publicité mën a jàll loolu kese la sawaay ñun ñoo ngi ci woote nañu laase nañu ko TFM mais yéen ñi nga xam ne yéenay bawal te mu ñor leen mais ñëw leen jàppale xale yi ngir yàlla man de man de pare naa pour jàppale leen ku ci am combat yëgal ma ne am naa combat da nga bëgg ma jàppale la pare naa pour jàppale la Tapha Tine commencé na ko booy bawal combat bii commencé na ko damay dem ba ci ñoom di leen jàppale keneen ku ko ci def tamit dama lay jàppale kii moom waxuñu ko c'est mon fils maag moom ñëw dëkk sama doom la mu ngi ci lancé boo xam ne dama koy ñaanal yàlla carrière bi mu jublu nii yàlla àggale ko lu ma mën dinaa ko ci def pour yàlla def ko loolu maa ngi dégg bawul loxo ñëpp nag waxuma moom kese mbëri bawul yëpp laa wax maa ngi dégg waa bawul ñi loxo ñu jàppale xale yi bawul yi ndax ruwaa bi mën a dugg bawul comme dem na ci gox yëpp ñun dañu ko soxla te attention am nañu kenn koo xam ne mi ngi ci bunt bi muy tafaatin esa bii mi ngi ci bunt bi te war na ko mën a jël mais nañu ko jàppale maa ngi woo ñëpp jàppale ko ñu ngi wax euh, euh, première partie émission bi mo ngi dem ci waaj a jeex euh, bu ko defee ñu jublu ci deuxième numéro bi nga xamné ne fils de Sallo moo ko moom mën nañu ko tudde sax ndax gis nañu émission yu bari ci télé yi ñi def ay xam sa mber xam sa supporter kenn ku né amna sa turu émission mais comme Refan TV ni mu koy défé depuis ba mu ubbeek léegi mën nañ ne tay moy première sortie bi mu jëkk a def ci walu sport suñu borom baaxee aussi nu toog grand champion bo xamné mom moom fii ci tundu bawol Euh, kenn dootu ko présenté kenn muy euh, Saliou Lo looy tàggoo ko waa Refane li may tàggoo lenn rek mooy di ñaan rek encore di ñaan parce que làmba la ñuy wax koon ci làmba laa mën a ñaan 100 pour cent bawol bi ñu def nii maa ngi dégg bawol yëpp yëpp yëpp fu waaye mën a nekk di ñaan ku am sa dërëm boo ci mën a def mën a dag biyee waxuma sax nga jël xaalis jox nit ñi mais bu làmb amee nga mën a dem dagg ji billet nga ñëw stade nga ñëw seetaani sama suñu pàppa yi suñu maam yi ku ci yàlla di xam-xam boo xam ne mën na la ne lii mën naa ñaan lii pour mbër mi am ndam maa ngi talal loxo ñëpp pour ñu ñaanal xale yi ngir yàlla ak yonante bi parce que ñun làmb lañu xam moom la ñu am suñu senes yëpp ci làmb lañ ko def te yaakaar naa làmb toll na niveau boo xam ne fi mu nekk nii ah ñëpp ko soxla de comme yàlla may nañu ci ay xele yoo xam ne bëgg nañu ko ci ñu ngi maa ngi ñaan ñëpp ñu jàppale leen merci beaucoup. sàlloo ci kat carrière ak ban combat moo la gën a neex ci say combat yi nga xam ne def nga ko ci stade bi. non dafay dafay bari du nekk benn. parce que man boo xoolee talu ma woon ni gars yi. combat bu ma am ñëpp dañuy jox favori beneen mbër bi ñu ne moo ko man mais bu ma ñëwee yàlla dimbal ma ci ma am ndam kontaan naa trop ci làmb def naa ci carrière boo xam ne xëy na àgguma fi mu bëggoon ak mais nit ki sant yàlla am na ñu ma commencé woon doon fi ma li ma ci def defuñu ko ba maa ngi sant yàlla. maam Demba wala Mamadou Aliou moo ci gën ban combat parce que Fass ak Pikine dafa mas a nekk dër bi mu nekkoon combat boo xam ne et puis li ma ci gën a neex ci combat boobu bi mu taxawee gars yi dañu bëggoon delloo avance bi ñu def réunion gars yi waa Fass yi nee nañu combat bi dafa diis bu ñu ko jël bu ñu ko jël Moussa Niang ne ma yow ñëpp a ngi wax yow waxoo te yow yaay ndémbil gi ma ne ko leen rek laa xam. waxuma leen dara mais waa ji bu ma jàpp ci sëriñ rek su ma jàppul ci sëriñ ma nekk rek man sama bopp li ci des man maa ko géré loolu moo tax ñu jël combat bi moo tax mu nekkoon combat bu ma neex. mu naqari moom mooy Ibou Ndafa te daanuwu ma de dañu matt si niil mais combat boobu dama ko waroon daan mais bare na lu ci laxasu loo xam ne du lépp la ñuy wax jërëjëf sama waay 2017 Sane Ndiaga Diop ñaari mbër yoo xam ay mbër daan lañu Ndiaga Diop Dallo Dallo door na ma ko bañ Ndiaga Dallo Ndiaga Dallo ñoom ñaar ñu ngi xeex ñoom ñaar ñu ngi xeex Ndiaga Dallo ñu ngi leen toog ci bari ah Dallo dañuy ko ah Ndiaga bañ na ah ñu ngi bëree bëri métti Ndiaga Sango ñaari ñu mën gërëm ko mais ñoom ñaar xam nañu secret bi ah Sango mu ngi bal bañ na Sall Ndiaga Diop ah Sango Sango Ndiaga Diop Sall daan na Ndiaga Diop Sango daan na Ndiaga Diop jël ko sa bëgg ah oui jël ko sa nekkoon le 13 avril 1997